alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala waa kon xaal ci minute bu gàtt bi li ñuy wax waa Sénégal yépp mooy nan bàyyi xel ni lu dul jàmm jàmm ko tey lu nekk mën a xew tey ci àjjuma ji la 17 te yàlla nag waxoon na wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xassa moytu leen fitna boo xam ne bu ñëwee du yem ci bopp ñu ko tàlle ay du yem ci boppi boroom te kenn ko nekk xalaat état na xalaat état na xalaat nguur day dof loo nit waaye opposition bi tamit nañu xalaat responsabilité bi ëllëg ñoom it ëllëg dañuy yore nguur nañu dox ci jàmm ñi mën a wax moo xam nitu diine yi moo xam nitu aada yi la moo xam ñu mënti doon ñu ci mën a wax nañu wax ku jullit bul fàttee ñaan parce que ñaan lu am solo la yonent bi nee na addu'a huwa al ibada mais lii nii kenn xamul fu muy mujj man mii wax sax ba ma tudd sama mbokk mën na caa des keneen doomam mën na caa des keneen jëkkëram mën na caa des parce que fitna la boo xam ni bu tàkkee kenn xamul fu yi doon nañ wax naan fitna buy tàkk kenn du ko xam lu dul boroom xam-xam yi nit ñi sell xel waaye bu tàkkee ba pare ñëpp xam ko kon nañ ci bàyyi xel wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu